jaar sama gay yi inondation yooyu ca Touba à bientôt ce sera un mauvais souvenir ah mais la ñu tuuti la quoi mais li tax ma yang a def sortie bi mooy maanaam ini, jii ministre nafas, mu génne ne nawet bi du suñu nawet gars du bi bu dul nawetu kan la nawet bi bu dul seen nawet nawetu kan la wax kenn du lekk wenn wax kenn du ko lekk dañu koy dégg nit da ngay am dégg-dégg so bëggee firi ay alxuraan wala nga bëgg a jëlee soxla da ngay am trois ñetteelu xel am troisième bët tu vois bu ne nawet bi du suñu nawet ça veut bi pouvoir bi ak bi la amuñu temps wu teg ay kii pour euh, contrer nawet bi tu vois loolu mu nawet bi sunu nawet parce que dañu ko jël en cours léegi pour mu leer dama jox exemple daa mel ne entraîneur boo xam championnat football championnat bi nekk 23 journée ñu joué 20 journée ñu daax entraîneur bu bees entraîneur boobu dina yeggali journée dina journée yi mais saison boobu du saison parce que daa fekk kër tey jii yàq yàq équipe bi il ne peut que ñu jëlee nguur léegi on fait que constater des dégâts constater dégâts kese parce que ñu am temps wu prévoir gérer xool ay li ñu mën a teg ba loolu du am tu vois donc bu leen jëm manipulation wax dañu koy dégg waa moom moom moom moom bu leen mënu tontu lu leer man ma tontu leen lu leer nawet bi du nawet nawetu waa affaire ñoom ñoo koy yàq pendant des années defuñu dara di sóob lu ñu leen jox naan def nañ fi te lu ñu injecté kenn du ko gis